yàlla bi Mustafa ci dafa am ñetti force yu nekk ci doomu aadama muy force xel ak force bëgg ak force bañ mu ni ñetti force yooyu nag dañuy rafet di ñaaw ci kem niñ ko jëfandikoo rek buñ ko jëfandikoo ci anam gu xel nangu dina nangu ko ñu tuddee ko jikko yu rafet boo jëfandikoo ñett yooyu ci anam goo xam ne xel da koy bañ dina di ko bañ ñu tuddee ko jikko yu ñaaw mun nag ñett yooyu nag bu ci ne dafa am lu muy liggéey ndax doole xel li muy liggéey mooy xalaat ak ràññee dëgg-dëggi mbir yi lu baax ak la bon doole bañ li tax suñ borom bindal ko doomu aadama bi mooy mu di ci aar boppam ak di ci jañ jëpp lor doole cofeel jooju li tax borom bindal ko doomu aadama bi mooy mu di ci xëcc ay njariñam kon nit xelam nay xalaat lu baax ak xalaat ñi lu baax ak lu bon na fexe ba dooley bañam mu di jañ ay lor dooley cofeelam mu ci xëcc ay njariñ waaye mu ne bi ci gën a kawe ñu ne bi ci gën a kawe nag mooy dooley xel dooley xel la su la yàlla jagleel doomu aadama te jagleelu ko mbooleem mala yi ci des ndundat yi ci des malaayka yi daal ñoo ci ànd ak ñoom ñoo ko bokk ak ñoom ndax dañuy wax suñu borom dafa bind malaayika bindal ko am xel te bindalu ko bànneex ak naqar mu bind mala yi bindal leen bànneex ak naqar te bindalu leen xel doomu aadama suñu borom bindal ko ñaar yëpp booleel ko ñaar yëpp booleel ko xel ak bànneex ak naqar xel nag dafa am lu ñu ciy tuddee xikma mooy ak xereñ mooy ngëneelam ngëneelul xel mooy mu am xikma mooy walbati jikkoy doomu aadama bi ni laa bi fas di wëlbatee aw fas ba du jàdd du maam di ko téye ba du xel it mooy walbati doole mer ji ci nit ki yóbbu ko ci li war na mu ware te mooy njàmbaar gu ànd ko ëppal mooy wëlbati it doole yi cofeel yóbbu ko ci li na mu ware te mooy mu fegu ba lu muy bëgg yët mu teg ko ci aw yoon bañ a topp bànneexam ci lépp lu bànneexu ba bëgg mu topp ko ci xel mooy wëlbati nit ba mu taxaw ci digg doomu googu moo tax dafa mujj delloo ñaari lépp rek dafa mujj delloo ci ñaari mbir muy bëgg ak bañ ni nit daal daanaka bëgg la ak bañ rek ndax xel moom euh, force ñetteel la boo xamante ni day wiire mbëggeel gi teg ko ci aw yoon mbañeel gi mu di ko teg ci yoon ko dafa ñëw pour équilibré leen waaye nit kon day mel ñaar yu rek la bëgg la ak bañ nga ne lul bëgg mooy mu fegu nga ne lul bañ mooy mu am ak njàmbaare te du ëppal moo tax ñu delloo lépp ci xol di wax ne xol mooy buuru cër ndax xol mooy bëgg mooy bañ xel nag dafa mel ni laab juy ñëw di ko wiire waaye nag taxul mu ëpp ko doole ëpp doole bëgg ëpp doole bañ isaa nit dina bëgg dara xelam gàntu mu wóor ko lii gënut ba noppi doole yi topp bànneex jooju puus ko ba mu def ko isaa nit mën naa bañ dara maanaam jëfandikoo meram ci dara xelam it du nangu lii muy def waaye doole yi mbañal jooju ëpp ko doole ba mu dem defi ko ak doonte xel mi gàntu na moo tax xol mooy lépp moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci benn xadis ni dafa am wenn suux bu nekk ci doomu aadama boo xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon te mooy xol loolu mooy li ndax yàqu goo gis ci kaw suuf rek boo xoolee dëgg-dëgg danga gis ni mu ngi juddoo ci ëppal ci mer ci mbañal baa nga ëppal ci ak mbëggeel kii day rey àttan rey junni nit ngir des moom kay na dajale ay milliards ngir topp bànneexu bakkanam am ku nekk ci wetam amul lu mu reere ëllëg kon njaaxum gu ngeen fi gis ci àdduna benn mi ngi jóge ci ëppal ci topp mer mbaa nga ëppal ci topp sa bànneex